nan tagg Ahmadu Lamin moom la nu may sirul xar baax la fees ba ñu moom baay baax ku lëm ci xarnu bi baatin ba jaaxal na Kajoor moo tax ñu fal ko lëm ci gisee ma ngay dëngeen ni ku lu mag ci xarnu bi faj moo ca gën a gaaw lu wax mu ni waaw day fal di fël ci gaaw si mbaara mat naa ragal ci xarnu bi te jàngul arafta man la xam ca suuf moo man arafta man wolof jomal na mboolem xarnu bi sañ-sañ bala doon ci moom jagleel ga jiitu na judoom bëgg ko suur daal di moom meram xajul ci xarnu bi yàlla nu ko may wootil lamin fegal ko ayu bépp noonu ku dégg ñaam di neen amin ngir yàlla naatal xarnu bi wi jaali xam naan dara jaam bu ne jalan ni saf jaam nërëm nërëm yi safi maam raamal ko war na xarnu bi xeraw leen na kal fi ahmadul lamin moom mi jubook yàlla borom kun fa yakoon am na wilaayatu te am na xar baax ragal na yàlla bu di cey ci lee baax moo di borom xam-xam te moo di yaaram mooy doomi bamba tey sëtu mamaram moo di sunu sëriñ te mooy moo ni fegal jaxal na ma ba duñ ca jaar moo am gërëm ak ki ngëneel yooyu kii mooy borom mu nawirul bun moo ñu jariñ di ñu nun depp lool waa naaki naaq moom muy fajal su raggi xol moo ñuy defal moom muy fefal balaa yu mu mbag mu moom kenn du moom ngir moo tollu woon ci ay meloom wàllu mu masa dajeel nga di ko yéem la xalaat nit mbaa te muy soppi golo kii moo rafet ay jikko moo rafet melo mooy mu ñu njàqay te mooy dàq lool kuy teew fa moom mu daa du lay defu xarit moom mës ci benn saaru muy dëgg lu na mu bur yàlla daa ko koy defal moo tëddi ak jaboot di rey ay jagleel ku leen di jox addiya am te dootul jël si baara Mbakke doomam du ñee doomi keneen di dërëm ak taali gën du na keneen ngir mayaam defar na ay doom maam tabarkeeli sa sam maam yi sëriñ dan Mbàkke ibnu sëriñ Amar Fall ba maam yi sëriñ dan Mbàkke ibnu sëriñ Amar Fall ba defar na ay doomam tabarkeeli sa sam góor ak jigéen la tax ku lay naw la moom ku dib sa tëm du fërfëri lii dërëm maam baarakat man réeré la am xam-xam baraw na xel te jàng lu araaf ci lu mbéréw ku ko rawoot nee na la wif lu neex neex borom Mbàkke Kajoor maam baara may way lu njaamur a Kajoor lu neex borom neex borom Mbàkke Kajoor maam baara mooy wàllu njàmbur ak Kajoor Cheikh Mouhamadou Lamine Baara gudd fan te yërmande rek a taxoon musiba yooyu si fi moo ko gàddu lu waay tawat ba dem fa moom mu faat ci benn saako na mu jokk kéema bu rëy woon gu jaaxal jamonoom ci ay waxam ak jooy duñ ko jéem yàlla ko may ngeen lu yaay kenn amul day folli ay noonam di fal na koy jëfal ko jox Cheikhul Khadim boole teekaan dina la xoom hidaaya yu rëy daana ko jox Cheikhul ay kaamil dina la xoom ku ma sa ñëw fa moom da lay dollee ka ñaax di jaamu yàlla ak soppit yoon bu baax ay taalifam ba yonent mi ay seede ndax lay ku leen gis ci at mi doo ta dee nan sant yàlla buur bu baax moom mi nu may ki way baalu bashir bu ko xamul ba tooñ ko day xalku kii kenn manta tee lor dal ko ngirum cofee gu taata set bii di way maamam ji tee mooy xëy di dem tool ka bay moo ma dul mbakki yu moom sëriñ bashir mooy ki way di sant yàlla mi di di ñaan ku dégg way wi la tamu nee ko mu di ko ñaanal laaxu di jéggal ko subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin والحمد لله رب العالمين